asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen fàttali di fàttali sunu bopp ragal yàlla ak jaamu ko di leen ndokkale ci at mu bees bi ñuy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu teewe ko ay at yu baree bari ñuy ñaan it yàlla yokk ñu kàttan ak man-man ak xel biñ koy jaamoo ci anam yi mu ko bëggee ndax ñun ñëpp réeréwuñu mbir ni sunu boroom subhanahu wa mu ñu indee ci kaw suuf ngir ñu jaamu ko naka lañuy ñuy jaamoo yàlla naka lañuy ñuy jaamoo yàlla naka lañuy ñuy jaamoo ki nga xam ne gisuñu ko naka lañuy ñuy jaamoo ki nga xam ne xam ne ñi ko am la ndax jàpp naa ni ku ci nekk ci ñun rekk dee war na kaa fàttali ne yàlla ku am la ku ci nekk ci ñun war ngaa gën a góor góorlu ba sa nekkin sa digganteeg euh, doomu aadama nga war a xam ni sa buntu jaamu yàlla foofu la nga war a xam ni sa buntu ragal yàlla foofu la nga war a xam ni bu fekkente ni dangay wër yàlla yaa ngi ko war a wëree ci doomu aadama yi ndaxte yàlla moo teral doomu aadama yàlla moo suturaal doomu aadama yàlla moo may doomu aadama lu mu mayul kenn yàlla moo defal doomu aadama lu mu defalul kenn wala lu mu defalul lenn kon kay boo xoolee bu dee boroom xel nga dangay xam ni booy moytu yàlla yaa ngi ko war a jaarale ci doomu aadama moytu doomu aadama bokk na ci di ko bañ a xeeb moytu doomu aadama bokk na ci di ko ban a sosal moytu doomu aadama bokk na ci di ko bañ a tuumaal moytu doomu aadama bokk na ci dajale ay wax yu dul dëgg rekk nga teg ko ci doomu aadama boobu na la leer ni yàlla mi nga doon wër réer na la te jaamu bi mu la dig walla digal nga jaamu ko xamuloo ko ndax nag boo demee ba ci biir dangay xam ne jaamu yàlla daal mooy dangay nangoo doon jaamu jaami yàlla yi te jaamu yàlla ca la nga am la nga xam la nga mën jàpp naa ni ci sama xam-xam bu gàtt ñett yi bu la rëccee rek pour nga mën cee xam sa borom du yomb mooy ci la nga am la nga man la nga xam ci nga mën a jaamu yàlla te li ñuy jaamoo yàlla mooy ngir ñi am yàlla waaye bu fekkente ni sa nekki nag diggante sa nekki nag doomu aadama yi sellaloo ko ah boobu nag yàlla bi ngay wër xaw ma bu fekkente ni dinga ko gis te tey jamono bi ñu toll nit day yeewu suba rek toog xool li ko neex ci nit taqale ay waxam yu ko neex ter ko ci teg ko ci doo ci ci deru gor teg ko ci deru doomu aadama bi nga xam ne defu ko waxu ko ci jamono boobu lañu toll ragal yàlla bi ñuy wax ak jaamu ko bi bu fekkente ni doomu aadama réer na la rekk xamal ni boobu yow yaa réer ci sa bopp réer bi ngay réer ci sa bopp mooy tax nga réer sa diggante ak sa boroom te boo réeree sa diggante ak sa boroom ngir nga mën a ràññee sa moroom du yomb moo tax tey guddi yi ñu toll nit ñàkk ragal yàlla mooy waral mu xool lu ko neex ci jamono bu ko neex mu xool ku ko neex rekk mu yëkkati ay kàddu yi ñaaw di ko teg ci deram moo tax bu nee nit nit ay garabam man leen déedéet loolu wax bu yàqu la ndax ba nga nangoo nit doon sa garab rekk foofu lay nit delloo doon sa poson ndaxte nit moo lay taxaw léegi tàgg la nit moo lay taxaw léegi teral la waaye nit mooy yeewu suba taxaw bëgg la summi def la yaramu neen ci kanamu ñëpp waaye ndax loolu ki koy def te muy woote woo jullit fan la yaakaar am yàlla ci këppal këppal yooyu muy def mu jàpp ni loolu mooy lépp bu fekkente ni julli ji ngay julli yóbbuwu la ci nga mën a teral doomu aadama ni yow julli yi ngay julli bu fekkente ni mënulaa yóbbu ba nga suturaal doomu aadama ni yow julli yi ngay julli bu fekkente ni mënulaa yóbbu ba nga maandu ci mbiru doomu aadama ni yow julli yi ngay julli bu fekkente ni mënul dindi coqarte ci yow julli yi ngay julli bu fekkente ni mënul dindi kiñaan ci yow julli yi ngay julli bu fekkente ni mënul dindi rëy ci yow kon damay jàpp ni danga war a teg si julli gi nga wuti leneen ndaxte kon yow li ngay julli xamoo ko ndaxte yi ma lim yépp képp kuy jullit kuy woote woo jullit di julli bu fekkente ni xam na li muy julli ci yooyu la ko mën a yóbbu mbokki jullit yi nee naa leen toll nañu ci jamono joo xam ne ndox bariwul te ñuy rooti néew nañu kon ngala bu ñu leen rootalee ndox mi bu leen ko yàq bu leen ko tilimal li ma ci namm mooy mooy jamono yi ñu toll ñi nga xam ne jege nañu suñu boroom am nañu waaye bariwuñu waaye na ngeen góorgóorlu ba bu ngeen dajee ak ñoom ngeen fexe ba defaru fa ndax damay wax ni bu ñu bëggee tënku ci démb te fekkewuñu démb fekkewuñu ko fekke démb sunu tey danañu réer moo tax sa tey bu réeree boobu danga xamul ne ndekete démb bi ngay wax mooy tey te danga xamul ne ëllëg bi ngay joxoñ boo sa yegsee it tey ngay wax kon kay mbokki jullit yi lépp tey la bu ñu sàggane sunu bopp ci tey ñu fexe ba ràññee góor yàlla yi ci jamono nañu fexe ba ràññee nitu yàlla yi ci jamono nañu fexe ba baat bi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati saa su ne ak ci anam yu ne ñu fexe ba xam baat boobu muy baatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ñu bari dañ koy wax ahankay bari na it ñuy woote woo ay borom xam-xam bu ñu leen ne lan mooy laa ilaha illa allah dañ la naan amul benn buur bu ñuy jaamu bu dul yàlla waa ndax boo ne laa ilaha illa allah war nga fee mën a jëmmal leneen ba koy joxoñ naan buur la bay xam ni waroo ko jaamu yàlla rek nga war a jaamu déedéet laa ilaha illa allah kay wallahi mooy dara nekku fi laa ilaha illa allah mooy kenn nekku fi laa ilaha illa allah mooy kenn màggul la ilaha illa allah mooy kenn yelloowul sant la ilaha illa allah ndekete mooy lépp di fépp di lu nay fu ne laa ilaha illa allah muy baat boo xam ne bu fekkente ni yaa ngi koy wax da ngaa war a góorgóorlu ba yëg ko yëg bi ngay yëg baatu laa ilaha illa moo lay yóbbu ci mën koo dund ndax boo ko waxee boo ko xamee rek nga yëg ko dalay yomb waaye it nga dund ko dalay yomb ndax dund laa ilaha illa allah mooy nangoo ngaa dee balaa dee di ñëw su dee yegg la fi fekk waaw ndegam dee moo mën a ñëw bañ la fee fekk gannaaw ba nga sooboo ci géeju yàlla ji nga seey ci baatu laa ilaha illa allah nga góorgóorlu ba xam baat bi nga góorgóorlu ba baat bi nga góorgóorlu bay dund baat bi kon kay damay wax ni ndekete laa ilaha illa allah fa la lépp doore laa ilaha illa fa la lépp teeree ndekete julli géeg woor yeeg asageeg lépp li ñuy def ci lu baax du lenn lu dul nañu xam ne lan mooy laa ilaha illa allah ndekete bu ñu xamee laa ilaha illa day tax lépp luy rëy day diñ ci ñun laa ilaha illa dafay dindi ngay yëg sa bopp ndax nag ñàkk xam baatu laa ilaha illa allah moo tax réew mi tey sama-sama yi bari ak mana-mana yi bari sama-sama mën a mën a man la kañ nga fi yow kañ yow mii mën a mën a ak sama-sama kañ nga fi ak ba ngay ñëw lan nga ëndaale yow ñaata tànga fi def ak booy dem lan ngay yóbbaale ba nga mën a war a taxaw tey di fëgg sa dënd naan man maay def walla man maay dindi ñàkk xam laa ilaha illallah mooy tax nga bañ a maandu nga fekk yàlla taxawal adunaam yàlla di waajal àllaaxiraam yow nga a tukkil aduna tey te yow kañ nga fi ba naan dafay tukki ndax warulaa góorgóorloo yow mi nga xam ne yaa ngi wax laa ilaha illallah nga góor góorlu ba xam baat bi nga góorgóorlu ba yëg baat bi nga góor góorgóorlu bay dund baat bi waaye nga góor góorlu ba nga xam ne boo xamee laa ilaha illa allah wallahi dootoo xool doomu aadama di ko tuuti dootoo xool doomu aadama ni yow di ko sosal dootoo xool doomu aadama ni yow di ko tiiñat dootoo xool doomu aadama ni yow ni li yàlla def ci moom doo ko nangu lañ moo nu yóbbee loolu lépp mooy àdduna moo tax ma ni bàyyi leen li leen ba bala li leen di ba di ba ndax àdduna bi daf ñoo bàyyi ba noppi xoolal ku ci nekk ci ñun tey boo yeewoo ñii ngi joytu seeni bët yi neexul déedéet du ko bët yi dañoo naqari bët yi ñoo nekk di la bàyyi ñii ngi joytu seen ndigg yi day metti ma ne la déedéet ndigg li mettiwul mu ngi lay bàyyi ñée ngi jooytu naan seen omi yi ñu ngi metti man leen déedéet oom yi mettiwul ñu ngi lay bàyyi ndekete lépp lu la yàlla joxoon mu ngi koy nangu bés boo yeewoo loolu di wàññeeku waaye yow sa xel mi mënoo ci bàyyi mënoo ko delloo ci yàlla sa xol bi mënoo ko delloo ci yàlla ba nga xam ni ndekete lépp a ngi lay bàyyi nga bàyyi ko bokki jullit yi góorgóorlu sunu diggante ak sunu boroom sunu góorgóorlu nag sunu diggante ak sunu borom du ñu mën a yomb fekk góorgóorlu ñu sunu diggante ñun doomu aadama yi nañu gën a góor góorlu ci di dimbalante nañu gën a góorgóorlu ci di suturaalante <clears throat> nañu gën a góorgóorlu ci ñuy joxante cër sunu diggante nañu fexe ba yaru ndax boo yaroo yar li mu la mën a may wallahi ñàkk yaru du la may dara te nit ak koo mën a doon loo am lu ne bu ci bu fekkente ni fekk na nga yaru yar boobu mooy taaral la nga am bu fekkente ni xam-xam moo la dab lii taaral xam-xam bi mooy yar bi ndaxte yar mooy tax nga dal soo dalee mooy tax ngay xalaat te boo dalee rek xalaat bi ngay mën a xalaat lu rafet rek lay doon nañu bàyyi di nekk ci fitina di xëcc fitina ci ñun ndaxte ndeke de doomu aadama bi mu juddoo mu ñëw ci àdduna sunu borom bi dafa mel ni saag bu vide la indi léegi nag ku nekk la ngay sol ci biir saag ba moom nga fay fekk bu ñu góorgóorluwul bay sol ci sunu xol yi lu baax du ñu mën a dox lu baax du ñu mën a wax lu baax duñu mën a def lu baax ndaxte nag damay wax ni xol dafa mel ni rek benn PC boo xam ne xoolal tey suñu téléphone yi lépp luñ ci dugal rek ñun ñoo ko fay mémoriser moo tax boo jëlee jëf gi ñaaw mémoriser ko ci sa xol say jëfin yépp dafay ñaaw say wax dafay ñaaw sa nekkin dafay ñaaw te sa lépp bu ñaawee ngir nga wax lu ñaaw day yomb ngir nga dox lu ñaaw day yomb ngir nga def lu ñaaw day yomb kon nañu góorgóorlu ba installé ci suñu biir xol yi loo xam ne ni lu baax lay doon ndaxte nag ku baax ku ne yàlla moo la gën a baax mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkale ci at mi ñu nekk leen ci mille quatre cent quarante cinq muy si sunu atu jullit yi te lépp nag luñ ci ut yi am na bunt buñ koy jaare am na ñaan yoo xam ne moom moo ànd ak at mi incha allahu bu ñu ko yàlla yombalalee ba ñu jot ndigal bi danañ leen ko baaxe ngeen di koy def ngir am jàmm ci at mi ngeen di koy def ngir gën a mën a jaamu yàlla ci anam yi ngeen ko bëggee ngeen koy def ngir mën a dal ngeen di koy def ngir coxorte yu nekk ci jamono bi ci réew mi mu bañ ñu dab ndaxte damay wax nii def fi lu ñaaw walla wax fi lu ñaaw kay léegi ci jamono bii du ndam liy ndam mooy nga xool lépp lu nar a ñaaw yow nga rafetal ko ndaxte adduna bi foofu la toll tey li ko indi nag mooy lii nga xam ne réseaux sociaux yi ñuy joxoñ nga xam ne jamono ñu ngi toll fi yoo xam ne ngir nit def lu ñaaw soxlatul nga génn sa kër di sol sa dàll di dem di fekki sa nawle di ko def lu ñaaw léegi ragal yàlla nekkatutul ci ñenn ñi ba nga xam ne lu ñu bëgg a wax walla def dañuy jël seen téléphone rek enregistré liñ ciy enregistré ci tooñ ci kiñ ciy tooñ wax ci ki ñuy wax lañ koy wax bu ñu paree ñu posté ko boobu ci jamono boo bëggee dox lu ñaaw diggante bi nga koy xalaat ba koy dox li lay génnee ci ñaaw ñaawteef boobu di nga ko gis waaye jamono bii ñu nekk ni tey ku deful attention ci téléphone yi mooy li may wax téléphone yi tax nañu sori sunu yàlla téléphone bi tax nañu sori sunuy soxna téléphone yi tax nañu sori sunuy doom téléphone yi tax na ay xarit euh, mënatul am ndaxte téléphone yi tey dangay ngay wax ak ki nga wóolu nga yaakaar ne wóolu nga ko fekk moom mu ngi lay enregistré te bu enregistré ba noppi day jël la ko neex ca la nga wax mu interprété ko moom nu ko neexee mu jël sànni ko ndax loolu day defar déedéet mënut defar day yàq téléphone yi tax na kenn jógatul di seeti nit ñi kenn jógatul di seeti mbokkam kenn jógatul di seeti soppeem kenn jógatul di xooli am di jàmmam jàpp nañ ne bu ñu toogee ci téléphone bi rek luñ ci wax rek nit yëg jote bu ko jotee rek jeex na déedéet dafa am loo xam ne jóg dem fekki sa moroomu jullit dafa am leneen lu muy def mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla miy jéggale yàlla ñu yàlla boole jéggal di leen fàttali di fàttali sunu bopp na ñu ngi jëm ci weer yi di ñëw ci réew mi fii ci Sénégal ay élection présidentielle ñu ñaan yàlla jàmm ci réew mi ñuy ñaan yàlla tànnal ñu ci réew mi ki nga xam ne bu ñëwee jàmm day yokku yàlla tàllal ñu ci réew mi ki nga xam ne bu ñëwee dal day yokku yàlla tànnal na ci réew mi ki nga xam ne bu ñëwee fitina du am ci réew mi yàlla tànnal na ci réew mi ki nga xam ne bu ñëwee suñu jaamu yàlla dana yomb loolu nag pour muy yomb ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp di wax lu baax di digle lu baax di xalaat lu baax te dañu xam ne réew mi mooy suñu réew lu fi baax ñun lay baaxal waaye lu fi yàqu ñun lay yàqul nañu xam ne amuñu lu dul suñu Sénégal ji nañu xam ne it mag ñu baax ñi lañ fi liggéeyoon ahankay waaye bu fekkente ni mag ñu baax ñi liggéey nañu lu baax tey ñu ñëw ci suñu jamono ñun ñu fas ko yéene yoree nuñ ko warta yoree bu boobaa nag bu ñu dara bett ndax mag ñi moom la doon seen seen devoir def nañ ko ba noppi rëddal nañ ñu ay yoon nañu teg leen seen tànk fii bu ngeen fi taxawee bu ngeen toppee yoon wi di ngeen daje ngërëmu sunu boroom dingeen am jàmm dingeen am sutura te li ngeen namm ci sunu boroom dina leen yomb waaye bu fekkente ni nag fas nañoo yéene teggi sunu tànk fi nga xam ne mag ñi foofu lañ tegoon seen tànk ba gis lu baax liñ fi gis yépp ba dégg lu baax liñ fi dégg lépp ñun ñu ñëw ñu ne déedéet lii yitteeluñu li ñu bëgg mooy ni jamono di doxee ah ni jamono di doxee nag ñëpp xam nañ ko bu ko defee yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar ñu ngi leen di wax déwénati di jéggaluwaat ci suñuy kàddu bu fekkente ni am na loo xam ne ni dégg ngeen ko te neexu leen xamee la ci sunu matadi la waaye yéene bi daal moo doon fàttali nit ñi fàttali sunu bopp ragal yàlla ak jaamu ko yéene bi daal moo doon ñaan yàlla jàmm ci réew mi ñaan yàlla jàmm ci kër yi ñaan yàlla jàmm ci àdduna bi man la seen soppee Hamdou Rabby Wane asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.